أكرمني بخلع ولا أعد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بي كفاني الكمد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد أسأل كونتي قصيدة خارقة لحادة مفيدة mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ci ndigal ak ci kilifteefu xalif général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ca ànd ak wér sëriñ Cheikh Mbacké Ismaïla ak mbooleem njaboot ak Mamoor Jaar gépp ci kilifteefuk sëriñ Fàllu Mbay sëriñ Cheikh Touba xalifa sëriñ Mbacké Ramata ak mbooleem njaboot ak sëriñ Mbacké Ramata gépp sëriñ Souleymane Dieye mbokki jullit yi mbokki taalibe yi su ngeen gisee jotaay bu tedd jotaay bu am solo bii ngeen xam ni ñoo ngi fii ci Mbàkke Bawol di waajal bisu mag bisub diine bisub lislaam di bisub xasaayit kenn ci njaboot ak seexul xadim xadim rasul di ko def kenn ci njaboot ak maam Cheikh Mbay di ko def waaye itam kenn ci njaboot ak sëñ Mbàkke Ramata di ko def di sëriñ Ibrahima Mbay xasida bis bi nag bisub sant la bisub ñaan la bisub fàttaliku seexul xadim xadim rasul la at mu jot nag mu baaxoo koo def fii ci Mbàkke bis bi nag ren mi ngi tolloog fukki fan ak juróom ci weeru février fii ci Mbàkke lañ koy amale waaye nag bis bi ren du ko tuddee kenn ci ay wëlëreem di jàmbaar ci afisul quranul karim di sëriñ Ibrahima Dieye waaye tam mi ngi ko dara jaale ki nga xam ni moo di sëriñ si bi ngir woote woote boobu le ñoo ngi fii nag den fa seen yëkkati kàddu gu njëkk gi jox ko sëriñ Gueye mu ubbil ñu jotaay bi woo mbokki julleeg mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu ca paree ñu jébbal kàddu gi sëriñ Omar moom mi nga xam ni mooy wax ci turu sëriñ Ibrahima Dieye mi ñu duppee bés bile ginnaaw bu ñu paree nag jox kàddu gi sëriñ Alioune Diagne moom mi nga xam ni mooy jël kàddu ci tëri ci turu Serigne Ousmane Sibi mi nga xam ni moom lañu ko dara jaale bu ñu paree nag jébbal kàddu gi ñun ñëpp Serigne Fallou Dieye moom mi nga xam ni mooy woote ci turu mbokk yi ak dëkk yi nga xamante ni kenn ku ne xam ne Serigne Ibrahima mbay boroomu askan la ca kenn ku ci nekk yaa jàpp ni yaa gën a xër ci Serigne Ibrahima mbay mu woo leen ci bis boobu boobule ndax Serigne Ibrahima bàyyut kenn bàyyut fenn suñu paree nag moom Serigne Ibrahima Mbaye moomu la ñuy jébbal kàddu gi mu yëkkati kàddoom wax yëg gi nga xam ni am na ko ci sant seexul xadim xaadim rasul ak njabootam gépp ginnaaw bu ñu paree nag jébal kàddu ki nga xam ni mooy kilifa ak jotaay bi moo di sëriñ fàllu mbay mu tëjal ñu jotaay bi kon nag mbokk yi ñu def jébal kàddu gi ki nga xam ni moo di sëriñ Gueye mu bil ñu jotaay bi sëriñ bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokk ñu seetaan bu lañ gisee jotaay bi mooy jotaay bi nga xam ne baaxoo na ko amal at mu nekk fii ci quartier Touba Mbayeen ci Mbàkke Bawal du ko amale ci penc moo xamante di pencum cosaan di pencum lislaam bokk ci penc yi penc yi sëriñ Tuubaa yi sëriñ Ibrahima Mbay xasida di xaafisu Quraan di sëriñ daara mu baaxoo ko amal at mu nekk du ko amee ci kilifaam di xalifaam di léppam di sëriñ Fàllu Mbay di xalifa sëriñ Tuubaa Mbay bis bi day bisu cosaan bis boo xam ni ñu mu ko yàggoo waxee ci jotaay yi jàll nëgut ba jamono neex baaba bis xew mi di ko woote bis la yoo xam ni Cheikh Mouhamadou Kabir mbay mu baax ma moo naan jóge ci Louga di ñëw fii di fekk ci maami Serigne Ibrahim di ko topp ba ji fekk si bàyyi Serigne Ibrahim gannaaw bi loolu wooyee Serigne Ibrahim jël ko di ko dundal waaye li alxuraan waxoon ne fa hab lii min ladunka waliya yarisu ni wa yarisu min al yaqub loolu moo tax Serigne Ibrahim jël bis bi doon bisub cosaan ngir na maamam ak baayam daan ko dundalee ci alquran ak xasida ak bende mu def ko noonu bis bi nag day bis boo xam ne gaa yu baax yi bëri jaar nañ ci waaye ku ne xam ne sëñ Ibrahim sëriñ Sambay mooy buntam mu dara jàll ko bisu tuddi ko mu doon bis boo xam ne bisu sant sëriñ Sambay mboolem alquran guñ ci jàng ak xasida lépp da koy def addiyee sëriñ Sambay jaare ko ci moom mu jàll fa mbaaxoo jàll ba ca mag ñi baax ña sëñ Ibrahim nee na nag ren mooy vingt-quatrième édition ñaar ak ñeent doon bis boo xam ni mi ngi sàkku ci képp koo xam yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mi ngi ci woo jiitu ci woote bi nag njabootuk Serigne Touba di dalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Murtada dalee ci soxna Fatimatu Dia ba ci soxna Maymunatu Suxra ki Serigne Touba njëkk a seexal ak ki Serigne Touba mujj a seexal sa Ibrahim nee na mboolem ki ahlu Qur'an mboolem koo xam ne lu baax la bëgg sëñ Ibrahima ne mi ngi sàkku ci yow nga teew ci bis bii nii ndax amut lu may bis bi nga xamante ni mooy bisub maamam di bisub baayam di bisub sëriñam bis bi nag kenn ku ne xam na ni sëñ Ibrahima daana tànn ay jëmm yoo xam ni ñenn ñi da koy tudde suñ mbokkum baax mi wax na ko ñenn ñi da leen koy darajaal la ñenn ñi da leen koy def invité d'honneur ñenn ñi da leen ci def rendre hommage mu tànn ñaari jëmm yoo xam ay xaritam ay wëllëreem doon ancien député di Mame Bouna Sall dëkk ci Daara Jolof moom la def ci inf d'honneur yi beneen inf d'honneur mooy man mii di Serigne Gueye man la inf d'honneur kon maa ngi sàkku di wax ci sama kàddu bopp mboolem ko ma ëllu Qur'an nga tama bokk ci yéen di ëllu xasida tama bokk ci yéen di ëllu asrar tama bokk ci yéen mboolem ko xam mbokkum deret la ba mbokkum askan ba mi mbokkum dëkkandoo ba di wóllëre man maa ngi lay woo nga ànd ak man ci bis bi ñu dundale comme na nga ko baaxee dundee man nag maa ngi wax ne képp koo xam ne am nga yéene lebal ma na nga ñëw ànd ceeg man képp koo am na yéene fay ma na nga ñëw ànd ceeg man ndax sëriñ Ibrahima day sama xarit ci lépp biir ak biti ba kenn ku nekk xam na sama diggante ak moom kon bu jëlee bis bu mel noonu jox ma ko man maa ngi jëlaat bis boobu di ko bégee di ko gàttandu di wax ne sama xol sedd na ci lool di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ñu yëg ci jàmm te buñ ci yeggee suñu borom may ñu kàttan ak tawfiq ban def ñu kawe suñu jott wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen baloq di leen ko baal ñu ngi wax ci turu waa ko Cheikh Ibrahima Dieye mi nga xam ne ñoom lañ sedd ji ca xalifaam Cheikh Moustapha ak ki rakkam nee na ñu ngi booloo ci seen gannaaw baay ku mu mel ni bis bi njaboot ak Cheikh Omar Dieye ñoo ko moom ren sëñ Souleymane Dieye nekk ci bopp ba ak rakkam kon nee na mbooleem askanu njéeyeen daal ñoo bokk di di woo mbokk yi di leen ci woo di leen ci séentu di leen ci xaar xam ne yàgg nañ cee jàpp waaye ren ji day seen ab cër nee daal mboolem askanu njéeyeen daal ñu ngi leen di séentu yéen mbokk yi di leen ci woo di leen ci gàttandu di leen ci tatagal ñe ñu ngi ñaan mboolem fu bis bu fi mas a jaar boobu ren bi dàq ko dañ nee na ñu ngi koy waajal di ko bànneexoo di ko sagoo mbooleem fu mbokk nekk ne ñu ngi leen ciy xaar asalaamaaleykum wa rahmatulah. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi wax ci tuur sëñ Abdoulaye Sy bi mi nga xam ne mooy xalifaab sëñ Ousmane Sy bi sëñ Ousmane bi nag buñ ko dara jaaree suñu sëñ Sàmbay képp koo xam ne sa sa tuur na ci moom war na koo bàyyi xel bu baax ci xam ne moom kat ku liggéeyal sëñ Abdoulaye ba mu dër bi la ba mu gërëm ko dooroon jàmbaar ju rëy rëy kon ñu ngi koy bàyyiloo xel mboolem ku sëtoo ci moom rek di ñaan suñu borom yóbbu ñu ca bis baak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo ci jotaay bi tedd bii di leen woo it ci bis bi ñu leen baaxoo woowe muy bisu sëriñ Sam Mbaye eh, ci ndigalal eh, sëriñ Fallou Mbaye ak rakkam sëriñ Ibrahima mbay mi nga xam ne moom moo baaxoo woote ci bis bi ñu woote nag cu turu mbooleem ñi nga xam ne ñooy soppe si Ibrahima yi xam ñoo koy jàppale ci bis bi di woo nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun daañu jàppale ci bis bi tàmbalee ko ci nga xam ne ñoo daa jàng alxuraan ji nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo jiitu ci bis bi sëñ Ibrahima nee ne moo ngi leen di woo fàttewut kenn bu limee it dana am ñu fàtte waaye ku mu limutit jàppal ne yaa tax muy woote a ah, ñu koy tàmbalee di woo sëriñ maam Mbàkke imaam sëriñ Xaadim Jeey daara ak sëriñ Alioune jaañ sëriñ Amadou Mbay ak sëriñ maam Mamour Diop sëriñ bu juuf ak sëriñ baay Mbay Saaxo ak sëriñ Mansour Si ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi dégg kàddu yi te baaxoo ñëw ci bis bi di jàng alxuraan wala ñu daa def salaatu ala nabi wala ñu jàng xasaayit fàttewuñu it ñi nga xam ne baaxoo nañu ànd ak ñoom ci bis bi muy mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci daa jàpp ci ñu dëkk yi war mbakke ak dëkk yi nga xam ne sori nañ Mbàkke lool ñu lim nag dëkk yi nga xam ne ñoo ñu gën a jege te ku ñu limutit nga xam ne yaa tax ñuy wax ñu tàmbalee ci waa Tiib tàmbali ñu waa Daaru Rahman waa Touba Duy Sang Touba Dagga Diouf waa xur bi fàttewuñu leen tubaa Boofel Touba Yaañka ak Touba Ndiliki fàttewuñu suñu mbokki Saam Jaale ak Touba Afe fàttewuñu waa Daaru Rahman fàttewuñu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo woo ca Ndakaaru fàttewuñu waa diaspora bi mbooleem ñi nga xam ne daanañu ànd ak suñu Ibrahima ci bis bii suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci Amérique it fàttewuñu leen ñoo ngi ñaan kenn ko ne nang ci daa taxawe ah bis bi ñëwati na te bis bi it Serigne Sam lañ koy defal te Serigne saam loo ko waay defal mel na ni yàlla nga ko defal kon ñoo ngi ñaan àgg ci ak jàmm te suñu borom defal ñu te koy njoor billahi min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Nil Muntaqa yàlla na fi yàgg lool te wér di bu baax ak a ñaanal Serigne Cheikh Ismaila Mbacke waaye di ñaanal xalifa maam Mor Diarra yàlla na fi yàgg lool te wér tey ñaanal sëriñ Sayar Mbay mi nga xam ne moo fi toog jataayu maam Seexul Kabir yàlla na fi yàgg te wér waaye di ñaanal sunu xalifa bopp sëriñ Fàllu Mbay yàlla sàmm ko te wéral ko te yàggal ko fi te wéral ko ñaanal mboolem njaboot gi ngi woo ci woote ci bis boo xam ne bis bu nu baaxoo woote muy bisu sant sëriñ Sàmbay bis bi nga xamante ni yaakaar naa nekkatul bis bu ñuy woote nit ñi naan kañ la ak ak fan la bis bu ñu baaxoo def yàgg koo def ren jii di ñaar fukki at ak ñeent ñu fas yéene ko def nañu ko daan defee yi jiital ci alquranul karim ak salaatu ala nabi ak lépp lu baax rek ak bernde e, di ñaan yàlla yóbbu yóbbuñu ci ak jàmm bis ba nag ñu fas yéene koo def e, le 15 février bii ñu jëm incha allahu taala ñoo ngi ciy woo ñëpp jullit yëpp di ci woo murid yëpp di ci woo taalibe yëpp bàyyi wunu góor bàyyi wunu jigéen ñoo ngi ci ñoo ñoo ngi ci woo sunu kilifa yi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ bi eh, di jiital ci woote booba eh, sëriñ Cheikh Touba Mbacke ak sëriñ Souleymane Dieye sëriñ Gora Mbacke moom sëriñ Daam Mbacke ak mbooleem ñi nga xamante ni nekk nañ ci koñ bi di sunuy nijaay ak sunuy mag ku lim da juum. waaye bu ñu tuddee ñooñu rek dina dinañu yóbbaale mbooleem ñu nekk ci koñ bi ñëpp bàyyi wuñu kenn woon nañ ñëpp di woote ci turu soppe yi sëriñ Fallou Dieye ak sëñ Alsaan ak sëñ abdu ak mbooleem soppe yi eh, daayira soppe bi ñu nekk ci seen ginnaaw ñëpp maa ngi woo waa Daaru Rahmaan it eh, ñoom nga xam ne mbokk lañ ñëpp la lépp lañ di woo eh, sama kër nijaay ña fa nekk di woo sëriñ Abdou Mbacke sama xarit moom sëriñ Cheikh Daaru Rahmaan waaye diwoo woo Serigne Sam Mbacke moom Serigne mbakke astu kenn ku ne xam ne sama diggante ak moom waaye di woo waa Touba Ndiayeen buñ ci tuddee Serigne Daanu Ndiaye dana yóbbaale ñëpp di woo waa caameen di woo waa fépp rek bàyyiwuñ fenn waa ndokk ak ñëpp ñu ngi woo ñëpp ah, ku daal da ngay juum waaye fus waa Touba Beto maa ngi leen di woo waa ñoom ah, ku tudd sëñ Baar rek tudd na leen waaye maa ngi leen di beral seen woote waa Touba Béto di woo ñëpp rek kolim juum waa njàppandal bàyyiwuma kenn ak fu waaye mën a nekk rek ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppale ci xasida yi ñoom ñëpp ñu ngi teew kon ñu ngi woote ñoom ñëpp ci seen kon nag bis baa nañu ko bokk waajal ñu ngi ci fas yéene nag woo euh, préfet bu Mbàkke bi nga xam ne moo nekk kilifa gu mag gi nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi ñoo ngi ko koy yëgal di ko yëgal ministir Galo Ba mi nga xamante ni sunu xarit la sunu lépp la kenn ku ne xam na sunu diggante ak moom eh, di ko di ci woo Serigne Abdou Mbacke Ndaw naka noonu di ci woo Moustapha Diop eh, ak Serigne Mbacke Faye Serigne Salih Bousso Serigne Abdou Karim Fall waaye soxna Fatma Gueye di ci woo Serigne Abdou Assis Ndiaye waaye di ci woo Mouhamadou Mbodj mi nga xam ne moom it day doom ci koñ bi di xarit di taali bi di lépp. di ko baax a baax ci ñun di di nu di nu jàpp di ñu jàppale fu mu toll eh, kon ñu ngi koy woo ci bis bi bu baax di ci woo Serigne Mortada bu sunu xarit ak Serigne Maam Mor Ndokk ñooñu buñ leen tuddee ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi rek dañu yóbbaale mboolem kilifa yi ñu ci woo Serigne Baara Mbacke Beto moom sunu diggante ak moom ñëpp xam nañ ko ndax way juram la woon Cheikh Moustapha Mbacke ne dañu ko tuddee sunu way jur sunu nijaay sëriñ Ibrahima Dieye ñu gën koo xam ci sëriñ maam góor Dieye eh, jàngalkatu alquran moom lañ ko tudde ren eh, kooku nag bu ñu ko tuddee bis eh, defe naa ñëpp na nañ xam ne lu jaadu la ndax sunu lépp la kon ñu ngi ko dara jaale sëriñ Ousmane Sy bi moom mi nga xamante ni doonoon mag mu baax nekkoon Ndakaaru di koo xamante ni doomi Serigne Touba yi ñu bari buñ seenu njëlbeen Ndakaaru moom lañu daan dalal moom lañ ko dara jaale kon nag ñaari mag ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ ko kii ba tey ñu ngi ci fàttali ne suñu invité d'honneur ren Serigne Gueye mu baax mi doon wax léegi moom la ak si maam bu ma sàll ñoom ñaar nag kenn ku nekk ci ci ñoom ñëpp xam nañ sama diggante ak ñoom Eh, diggante bu rafet di àllaaxa bu rafet boo xamante ni wax dëgg yàlla eh, bis bi ñu tudde leen ko sax yàlla na eh, te yàlla mën naa dogal mu dem bam ba mu demee noonu sax kon sama diggante ñoom lu nit ñi xam la kon bis bi noonu lañ ko tërale di ci rendre hommage nag di ci ñaanal suñu yaay soxna Ummi Diop bu ndakaaru ak maam Gaas Ñas mi nga xam ne suñu wóllëre way jur la woon dëkk fii ci Kuude kon daal bis baa ngoog Eh, ku lim da ngay juum eh, bëgguma tudd ci lim di lim ñii di bàyyi ñi waaye woo naa góor woo naa jigéen képp koo xam ne mas naa jëflanteeg yow ci lu baax ñu ngi ñaan nga ñëw ñu ànd ak ñoon bis bi ñu fas yéene ko dundal te dundal ko ngir jëmmi yàlla te lépp luñ ci amit wala lépp luñ ci sàkku ñu am ko ci yàlla defal ñu ci lu koy suñ njortu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalib ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen gërëm ci teewaay bii ngeen teew di leen ñaanam sunu boroom tabaaraka ak taala mi nga xam ne moo leen fi dajale yal na yàlla àggale seen yéene ba bis bii ñuy séentu lépp lu ñu ci soxla lu ñu ci bëgg ci lu baax yal nañ ci jot yal nañ ci am ngërëmal ki tax ñu di ko def ci barki Sëriñ Tuubaa ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm. asalaamaaleykum maa mbooloo mi. du ñuy ñëpp du ñuy sëriñ Fallou Mbaye suñu xalifa Mbayeen di woo ñëpp nag ci suñ bis sëñ Saam sëriñ Saam sant sëñ sàmm Mbaye bi di jigéen ñi di woo góor ñi woo nañ suñ mbokk jigéen yëpp ñu ñëw ci waa ñu jàppale te xam ne bis bi kat jàpp sa bopp nga ci jàppal ku ci bàyyi sa waay sa bopp nga ci bàyyi ñu ngi leen di woo yéen ñëpp ngeen bu baax ci waa ñu jàppale ñu ci bis bi bañ defal ko ba mu kawar ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kon nag woote baa ngi noonu bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bis boo xam dañuy sant Serigne sambay jar na jóge fenn fu nekk ci àddina ngir teewe si ko ndax kenn ku ne xam ne Serigne sambay toog nga ci sab lal wala sab néeg wala ngay dox mu gindal ci suñu borom subhanahu wa taala xamal la ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul kon nag suñ ko dee sant lépp ñëpp la lu nekku ne nga ca bis bi kañ lay doon alxames fukki fan ak juróom ci weeru février wi incha allahu rabbi fii ci Touba Mbacké kon nag ñu koy soññ ñëpp di ko tàmbalee ci jànkati xasida yi ak jànkati alxuraan yi mbooleem soppee xasida yi ñoom tam ñu leen ci woo ci leen ko fàttali bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn xëy jàng alxuraanul karim istixfar salaatu ala nabi basmala bernde suñ demee ba jullituñ sa pare nag daal daje ca baas ba mbooleem ñi nga xam ni ñoom lañ ko tuddee ak ñi ñu ko dara jaale ak soppe yi xarit yi wëllëre am di jàmm yi ñu def waxtaan wi nag incha allah continuer fanaane njàng alxuraanul karim waaye tam continuer jàng xasida ak mboolem jàngkati xasida yëpp kon nag sëñ Ibrahima nee na mi ngi koy fàttali mboolem daayira yi xasida yi waa Mawaahibu Naafi ak mboolem xasida yi jàngkati xasida yëpp bàyyul kenn bàyyul fenn bàyyul ñenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jasaaka yow sang bi ñoo lay siyaare Baay Sam Mbay ndax yaay ki tax ba ñu xam kuy maam borom tuuba yaa doon nu say xal kabiir yaa cam te jëf li la war yaa xoti yoon wi ñu jaar ba xam maam borom tuuba ku bëgg a gis ko amee may yu biiru bay mën a defar ko amee may yu biiru siyaare jil muhammadul saqiiro moo doonu tey muhammadul kabiir daddoom ga ànd ak waare waak hadiis ba safu yonneen ba tooganook xadiija